salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara ministre Mabouba yow mi yor wàllu mbay mi lii ngay gis mboq la mboqum roose la xaaragul taw bi kii mën na ñor ta du taw bu yàlla ji tawee ba pare bu yàlla wala bu yàlla ji commencé taw fekk mu ñor nga dind ko mën ga defaat mboq kon mboq importé am liñ ciy ñàkk ci ay milliards exploité nga wut ko jiwu proposé ko baykat yi nga xamante ni bi dañuy rose ñu di bay mboq noor ak nawet ndax borom ginaar yi ñi ngi jooy saakub aliment 17500 wala 18000 wala 19000 te réew mi am espace bu mën a ñoral mboq defal ci loolu yitte yaa ngi focus nga ci mbay mi gis nañu la nekk gi nga nekk ci mbay mi bëgg cee génn sénégalais yi te ndam li ci suñu borom namm ñu war ko ci am loolu la la kii moom Mamadou Mouhamed i iñaane moo tax mu bëgg laa jaxaseeg béykat soble yi soble ngi ci dëkk bi ne guuj guujaral tool boo dem te yàlla jaa ngi xiin xamuñu naka lay tawe yàlla yàlla barkeelu suñu dund bele bi fexe leen a def ay formation nit ñi mën koo liggéey ñu toj bi côté yi ñu ñi tëdd dixième tëdd camp pénal tëdd cap manuel te seeni pen demewu noonu te nekkuñu ci risque génne leen nu former leen ngeen leen mbay mi ñu xam ko maîtriser ko ñu di leen pointel ay weer bu seen pen jeexe ngeen fay leen ubbi leen ub àll ñu dem liggéey développement dañ koy créer kenn du ko judduwale ministre bi yor wàllu mbay mi di ma ba gis nañ sa taxawaay ndogay Singapour xar yi mën a ñëw ci réew mi waxtaan nga ak jaaykatu xar yu mag yi waxtaan nga ñi nga xam ñoo war a développer réew mi ñun ñëpp nañ ànd ko bëgg ku ci lan la jox bul saboté dëkk bi ñoo ko bokk te ci defaru la toll ñu ngi sant borom bi moom mi nu wàccil Seydina Ousmane mu sell mi ji borom barrière or bi ci cité kër góor gi ki bàyyi léppam ngir Sénégal kin jiiñ lépp ngir Sénégal yàqub deram teg ko tuuma june saa bu xëyee Sénégal yi gën ko bëgg bëgg du lu doomu aadama di sàkku suñ borom lay neex mu xar xooli doomu aadama yi dugal la ci ndax doomu aadama lu mën a doon ak loo ko ëpp ëpp fayda ak loo ko ëpp ëpp alal mënoo ko duma ni ko danga may bëgg da nga koy wan lu tax mu bëgg la rek waaye Seydina Ousmane mu sell mi moo wan sénégalais ni lu tax nu bëggu ma booba gën a la concentré wu te nga gën a focus imposé nit ñi ñuy bay mbayum noor mi ak mbayum nawet mi ñi nga xam ne mën nanoo bay noor ak nawet ñuy bay bele di bay mboq dëkk bi nga xam ne dina mën a dox soble yi liy yàqu ci réew mi ci importation bi nga xam ne war na ko am ci dëkk bi nan xool espace yi semence biy dugg ci dëkk bi ñu xool soble bu am qualité nga xam ne bu soble bi ñoree dañ koy mën a lekk ba kero soble di jeex bu soble bi jeexee ñuy bay mboq bay mboq ñu bay bele bay bele ñuy bay dugubu suuna ñuy bay dugubu bësi ana lu koy waral mooy ñu jàpp ci même ñebbe mënees na ko bay mais nag yaay concentré wàcc ci terrain bi xool baykat lii seen jafe-jafe jàngoro ko faje ci bureau jàngoro ci terrain bi lay fajoo ana naka la jàngoro yi fajoo ci terrain bi da ngay xool ki feebar ngan ko ndiki li ki nga xam ne ko recevoir ci bureau mu di wax amaana mën na lay tawat bopp te fekk na nit ñi seen i tànkay métti wala seen i loxo te bo boo indee garab guy faj bopp bi métti àll du mos a du a dem wàññi ngeen engrais bi su gerte bi yéen a ci def yitte lu bare bari mbaan am na côté boo mu ndox fexe ngeen ndox dem fa dem ngeen sabado la war doomu aadama yi wan leen or bi leenu am màkko boog astafurla dem ngeen màkko gii ci Kédougou wan doomu aadama yi a fila na dëgër yanu paanum ndox anta gestu anta xulo doxal leen ñi nekk seen ginnaaw di wax nag ay noonu lan te duñ gaaw a